Ibrahima Diop ñu ngi bu baax di la ñaanal jàmm. maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay. di la baalu te di la te di ñaan yàlla koor gi ñu nekk nii yàlla nañ ci dugg ci bisimilah niñ ci duggee ci bisimilah rahmaani rahim yàlla nañ ci génnee noonu ci alhamdulilah rabbil alamin lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nañ ko yàlla nangul te bu ñu yàlla nañ ko fulandil. yalla bu mu nek suñu mujjante lu mhm. koor yalla ñu amé jéggal yalla ñu suñu borom jéggal suñu bakkar yi ñëk ak yi mujj ñu tay ak yi ñu tayu di ñaan yalla nak ya dafa ñu koor jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp sutura di ñaanal ñëpp tawfiq di ñaanal ñëpp tay sir ci barke Seydina Muhammad barke alquran promoteur bi mu ngi tuddu Ibrahima Diop nekk nek yor structure bu tuddu Kajoor production nek ci walu lamb tëgg journée bu mag boo xam ne nii tey jii moo jàlloon ci diggante double Mama Lamine double moteur mbay guy gi armée diggante Ama Balde ak Gris Bordeaux coowu làmb yëpp tey jii réew mi yëpp gis nañ sorti wu Ama Balde mu confirmé ne day bëre ki nga xam ne nii mooy Gris Bordeaux le Bordelais Ibrahima Diop nga tëggoon journée boobu axlu làmb yëpp combat boobu nag dafa bëri dafa lu mu tënk ci làmb combat boobu dafa bëri lu mu tënk ci làmb daa bëri lu mu ci lamb réew mépp di ko xaar muy diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux démb nag suñu doyen Beuz bi nga xam ne ni tey jii mën nañu wax ne confirmé ne tey jii moom tey jii ci Kajoor production la bokk muy sa nit di sa xarit waxtaan nañu mu ne tey jii bu fekkee ne Ama Baldé yóbbu na certificat de dirigeant am mën nañu wax ne combat boobu du ak deux mois Ibrahima Diop tey jii boo amoon tey jii loo ñuy wax ci diggante Ama Balde ak Gris Bordeaux fan la ci Kajoor production toll ñu commencé waxtaan ñu am faram diggante Ama Balde Gris Bordeaux moom Kajoor production moom yaakaar naa ni fi ci toll bëri na bëriwul ndax li tax bëri na bëriwul mooy Ama yàlla dafa def mu waroon bëre ak Gris yàlla mi dara tawul ñëw ak mm-hmm. nattoom ñu nangu ko nag bu baax a baax a mm-hmm. baax te xam ne jaam bi moom boo du jox sa bopp rek lu la yàlla suñu borom jox da ngay daal di nangu te xam ne jaam bi joxul boppam yàlla mm-hmm. mooy jox boppam te ama mi nga xamante ne tam mooy bëre bu sañoon tey bëre bu yàgg ba dem seeti leneen Gris Bordeaux bu sañoon tey ji bëre woon bu yàgg demoon seeti leneen mais yàlla suñu borom mooy ñëw ki nattoom tay Ama don na am wer mm-hmm. giri am wer ñu dem ba jour bu ja yalla suñu borom ne te fekk sama bakkan bi ku ci man dara kenn du ci man dara dafa bu boobaa dañ naan lamb ju daam mm-hmm. comme lool non yépp amul nak dara waru ñu dul ñu santat yalla bu baaxa baax delu santat suñu borom bu baax xamne suñu borom mom moy xol lu ko neex ak gën rek mu def ko te ñun lu mu ci ñun rek te ko ci suñu mbir lu ci dañ koy santé yalla te heure lu ci nekk ne dafa am àpp léeg-léeg jàmm di nga bëgg te yàlla li muy bëgg ak li jàmm bi bëgg du doon benn tey mën na nañu bëgg ne combat mën na am suba suba tant suñ borom ñëwul ci ak dogalam wala suñu borom ñëwul maanaam ànd ci ci suñu bëgg yooyu dara du sotti kon lépp rek dañ koy bàyyi ci loxo borom bi mi nga xamante ne moo tegoon Ama Baldé natt bi ñu koy ñaanal yàlla yàlla teggi ko ko te am nañ ci am nañu yaakaar ne mi ngi am tan bu baax a baax a baax a baax ñu ñaan tan boobu la yàlla gën koo yokk mu bañ a dellu mu bañ a dellu ginnaaw tan bi na jëm kanam ci barke Seydina Mohamed ñun ñoo ngi suñu ruux nekk suñuy liggéey di liggéey ndax yaakaar naa ne nekkuñu ci làmb kese di di di di di di daw maanaam focus ñu ci làmb kese ñoo ngi ci mhm. suñuy suñuy liggéeyu bob te yow am na loo ci xam daanaka suñuy temps bi ci loolu lañ koy ci loolu lañ koy concentré ba yàlla nit dara tëwul daal bu defee mhm. heure bi nga xamante ne daal yóbbu na guérison bu ko yóbbuwoon suba suba CNG bu ñu woon dañu ginnaaw suba ndax pare ngeen mhm. pour tëgg ko ñun pare nañ pour pour pour ñu tëgg combat bi ndax yaakaar naa ne moom bu. Mhm. tey jii tey jii tey jii tey jii Ama ak Gris Bordeaux ndax yow promoteur bi yaa ngi dégganteeg ñoom. tey jii ci sant Ama Baldé ndax yaa ngi koy dégganteeg ci Gris Bordeaux bu Ama Baldé yóbbee certificat d'origine ndax yaa xam nga tamit nit boo la dimbalee nga séq ay nit contrat contrat yi nga séq ak nit ñi tey yàlla dafay def ko séqal contrat ak lu mën a xew quel que soit tey lu ci mënti am di ngeen toog di ngeen di ngay dégganteeg ñoom par par mesure de respect di nga dégganteeg ñoom di nga séqal contrat parce que nekkul da ngay seq ñoom contrat après daal toog sa ruxu ñoom ñu toog seen ruq ku nekk nekk si sa bopp non non non non loolu loolu loolu du liggéey parce que li ngeen déggante ngay xam waa ji mm-hmm. état de santé fu mu toll. adversaire am tamit di ngeen déggante ngeen di waxtaan di mm-hmm. échangeante malgré que yow promoteur bi dafay métti trop ci yow waaye loolu mi métti ci yow tamit bàyyi xel ne tamit métti na tam ci mbër te loolu métti bu du ci ñoom kese la du ci ñoom kese la wàcc tey dal na ci armée mbay guy gi. wala maama Lamine kon métit bi ñëpp maam natt bi suñ boroom ci ñëpp la ko boole teg tey ni mu méttee ci Ama Baldé Gris Bordeaux nu mu méttee ci Gris Bordeaux la méttee ci armée ak mbay guy gi noonu la méttee ci maama Lamine kon dafay doon loo xamante ne bu amee rek tey. Mhm. ñi ci nekk comme ni ma ko wax dañ koy delloowaat santewaat ko yàlla. di ñaan ca ñi nga xamante ne laa ko seqal wax dëgg yàlla ñu nekk ay doomu aadama yu am gëm-gëm ay doomu aadama yu yu gëm nattu borom bi ay doomu aadama yu gëm. maanaam li yàlla di dogal ci jaamam ñoom it ñu jël ko avec philosophie nangu ko te xam ne lenn si fi lu dul nangu ko ndax yaakaar naa lu mu métti métti tamit ci ñoom ci man la gën a métti man mi jël samay million def ko ci. ku doon dem def ko ci leneen wala mm. doon xaar tam mooy di récupérer sama xaalis dem demaat defaat ci leneen wala mu dugalaat ci làmb kon bu suñ borom dogalee lii rek dañuy daan def lu dul sant du tee nag ñoo ngi waxtaan ñoom di diisoo ñoom di xool état santé Ama Baldé fu mu di waxtaan ak adversaire am ñoom noonu laa koy defe tamit ci armée ak mbay guy yeeg ñoom ñëpp daal. tey jii dañoo tey jii dañoo dégg Ama Baldé def sortie yi. confirmé leen mhm. Gris Bordeaux lay bëri. ñu laaj ko ci wàllu wér gi yaramam mu ne tane na bu baax a baax a baax a baax te am nañu yaakaar ne bis bu féexee. dina mhm. jël certificat de guérison bi yóbbu ko. tey jii bu fekkoon ci balaa ñëw korité nii Ama Baldé jël na certificat mhm. de guérison bi yóbbu ko CNG. ki yan dat lañ yaakaar te ji kajor production pare nañ pour jox ñu diggante amable di ak. xam nga kajor production du mom moy programme nan ci dat bi la ko bëgg teug wala ci dat bëre la ko bëgg teug parce que dañ fi am ay njit suñuy njit ñalla wa CNG au passage ma ci ciy le président Bira mom mi nga xamantene mom la yalla tek ci bop bi ñukay ñukay nuyu bu baaxa baaxa baaxa baax da nga xamantene tay ji yalla mom la fi jital ñukay nuyu di nuyu ak équipe bi yépp tey ñoom wax dëgg yàlla su loolu amee ñun instant bi ci CNG la ñu tënku parce que sax ci ñoom la ñu tënku ama bi mu blessé fa la yóbbu certificat de guérison ñoom ñoom seen i médecin ñu ñu wéral ne blessure bi am na su wéree tamit fa la yóbbuwaat ay document euh, certificat de guérison bi tamit comme nu mu yóbboon médical bi ñoom ñu wéral ne blessure bi am na su boobaa man mi promoteur ñoom ñu xool génne seen dat dama date bii kat taxaw na ndax pare nga pour tëgg man heure bu ñu ma woowee ndax pare naa pour tëgg pare naa pour tëgg loolu mi ngi dépendre ci ñoom date bi ñu may jox mais du man maay sàkkal sama bopp date lépp rek mi ngi dépendre ci ñoom. Mhm. Mhm. mais tey jii Ibrahima Diop Ama Balde fii mu toll nii làmb da ko namm ak ni mu toogee gëj a bokk ci làmb di dajanteeg Gris Bordeaux mi nga xam ne nii doomi Fass la. nekk benn mbër mu mag moo xam ne ci wàllu làmb mësta yàq làmb tey jii fi Ama Baldé toll mooy ñëpp ñu ngi xaar Sénégal ba ci am na yeneen promoteurs yoo xam ne ci information yu ñu jot sax ngi xaar Ama Baldé bëre pour ñoom seen journée mën a continuer tey jii promoteurs yooyu tamit di xaar Ama Baldé pour Ama Baldé bëre pour seen journée mën àgg boo amoon loolu di wax. non loolu moom wax dëgg yàlla moom saay wal faram ci la laay wax contrat xaatim ak Ama Balde ak Gris Bordeaux keneen promoteur nak lu mu xaatim ak keneen ak keneen wax dëgg yàlla man loolu moom lool lol moom focus su ma si te loolu ma man ci limay concentré ak ma focus si ci li nga xamantene won mom la signé mhm. ak Ama Balde ak Gris Bordeaux en bon uniforme ma xam bu baax lima signé ak ñom xam nga man ci lol la mhm. concentré ci lol la xol mais lu keneen signé nak mo wax deug yalla lol man concerné ma to lol mënu ci wax wax ju sori franchement parle mais ma li ma intéresse daal te ma mën cee wax mooy li nga xamante ne yàlla def na suñu borom suñu borom def na ni man ma signé ko ak Gris Bordeaux ak Ama Baldé. mais dafa mel ni niveau combat bi da ngaa xamoon niveau bi mu toll moo taxoon nga jël yóbbu combat bi ba CNG da ko fa signé dafa mel ni li nga yóbbee woon combat bi CNG te signé ko daf la garanti ci lu bëree bëri. waaw mais Fadam ku nekk xam na ni làmb doxee tey mënoo jël ay centaine de millions nga def ko ci làmb di ko signé ci ay mbed wala ci ay néeg wala ci ay ruq te dafa am ay structure ah, dafa am ah, structure ah. fi nekk boo am te ne moom mooy doxal làmb moo téye làmb te bu ñuy signé suñuy kon mënoo jël xaalis bu toll noonu tamit duñu ay ngaaka te xaalis bi dañ koo liggéey te xam nañu bu baax fu ñuy dugal suñu xaalis xam nañu bu baax fu ñuy def suñu xaalis ndax tey mënoo jël xaalis bu toll noonu tey nga liggéey ko di ñëw di ko signé noonu ci ay mbedd wala ci ay ruq te CNG nekk fi tey xaalis boobu boo ko ci ay mbedd wala ci ay wala ci ay néeg wala ci ay baraat sa xaalis sécurisé woo ko ñun gàtt gàtt fii dëkk bi lañ dëkk fi lañu màggee fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ defee lépp kon tey xaalis buñ koy joxe <clears throat> dafay am ci anam buñ koy joxe du loo xam ne dañ koy joxe noonu rek ku nekk dem yoonam après ku nekk ñu wax ni mu jeex ci ay kàddu non non no parce que tamit bu ëllëgee boo bëggee sa xaalis bu boo koy dab foo koy dabu jee structure bi moo fi nekk. mooy mm-hmm. sécuriser sa xaalis. <laughs> booy signé combat fa nga war a dem pour signé fa sa combat ñu mën a sécuriser sa alal loolu mooy yoon moo ta ñu def loolu. Mm-hmm. mais tey jii Kajoor production tey jii ci diggante Ama Baldé Gris Bordeaux amuñu beneen mbër moo xam ne tey jii pare nañ pour bu combat Ama Baldé Gris Bordeaux jeexee wala bu fekkee ne am nañ dirigeant bi génn na bañ taxawal combat ba am date bi pare wuñu pour jël beneen mbër jox avance wala déet. faram daal boo bëggee dégg dëgg naa ñun xam lu ñu fi baay ñun lu neex amateur yi moo ñu fi bàyyi. Mm-hmm. lu neex askanu lam moo ñu fi mm-hmm. bàyyi. ñun ñoo ngi fi pour làmb ñun ñoo ngi fi pour lu yokk làmb ñun ñoo ngi fi pour lu jëmale kanam làmb. ñu loolu moo ñu bàyyi ci làmb waaw hmm? lépp loo xam ne gis nañ ne buñ ko defee làmb dina yokk wala buñ ko defee dina neexal làmb wala dina dundal làmb ñun ñoo ngi fi pour loolu amuñu benn cible ci benn mbër ne mbër bi mooy suñu cible wala kii ak ki lañ pare pour tëgg wala kii ak kële lañ war a tëgg non non non ñu lañ fi nekk am pour pour làmb pour pour lu doxal làmb pour lu yëkkati làmb loolu mooy li nga xam te mooy li ñu intéressé quoi hmm. Hmm. tey jii tey jii tey jii Ama Balde bokk na ci mbër yi nga xam ne nii Ibrahima Diop question posé woon naa ko naa la ko posé waat mooy instant yii nii challenge lamb boo xam ne nii tey jii ñëpp bëri Ama Balde lañ bëgg a gis ñëpp Ama Balde dellusiwaat ci géewu lamb lañ bëgg gis ñëpp bëgg nañoo gis Ama Balde bu tooyal xaftaanam ñëwaat ci lamb Ama Balde boobu noonu chef cadre de dirigeant am ndax tey jii yow ci wàllu wér-gu-yaramam yow Ibrahima Diop en tant que promoteur bi nga xam ne yaa jël sa xaalis def ci moom ndax yaa ngi waxtaan ak moom ci wàllu wér-gu-yaramam ndax yow tamit waxtaan moom ci wér gu yaram moom boobu mooy tax la nga def ci moom tey ji ëllëg nga mën cee gañewaat dara pour combat bi nu mu gën a gaaw taxawee xam nga booy dafa daal dama jàpp jamono ba dafa mel ni yow bàyyi woo xel kon li ma la sànq dafa mel xaw nga maa boros lu mel noonu mari la bu baax de koy signé contrat di ngeen wax ni may ni may dégganteeg Ama Baldé noonu laay dégganteeg Gris Bordeaux du ñoom rek laa signé contrat noonu laay dégganteeg armée hmm. noonu laay dégganteeg mbéy guy gi noonu laay dégganteeg maama Lamine noonu laay dégganteeg double moteur ñaari mbër kese laa seexal contrat te déggante wu ma ak teg te amaana xat-xat bi la muy trompeur ak agogo nit ki da nga dëgg mais ñi des ñëpp hmm. suñu borom def na maa ngi dégganteeg ñoom téléphone maa ngi wax ak ñoom di échanger ak ñoom kon rawatina boo ci amee mbër mu blessé faaw nga koy nemmeeku di xool blessure am fu mu toll ndax mu ngi avancé wala avancé wul noonu laa koy defee tan ci double moteur di xool blessure am ndax mi ngi avancé wala avancé wul kon tey jii nu lu ñu war mooy à chaque fois gu loolu ame il faut tamit ñuy xool en tant que même budul sax contrat bi nga seet mais nit ki nga xam ko rek nga dégg am na tolof tolof bu ko dal da nga war a yëkkat sa téléphone woo ko nemmee ko saako teew ndax yaa ngi tane ndax yaa ndax mi ngi am tan ni ma waree noonu la la waree yow noonu la waree képp ku nekk ci monde làmb. Mm. tey man dama gis ne làmb képp ku ci am xoos xoos wala blessure bu ndaw. tey jii bu fekkee yor nga numéro kooku boo ko yor wala bu ngeen sequl relation sax fi nga toog war nga toog ñaanal ko li nga xamante ne mooy li kay dog-dog nekk ci moom wala gàllankoor bi nekk ci moom yàlla teggil ko ko ba mën a reprendre ay activité am mm. man dama jàpp noonu la doomu aadama di doxalee daal.